bët saw réew ma ca quartier bii di ba nekk ca commune bu Ziguinchor askan wa nelawtuñ ba yandoor ndax ndoxu taataay yoo xam ne nawet baa ko fa indi moo leen ëlëpp la fay juree nag moo di ay yooki jaan yoo xam ni ba ci ay feebar yoo xam ni xamuñ fan la bokk lii la ñëw suñu naataangoo Cheikh Tidiane Cissé ak Kaba Cissé di wax nawet du mbégte ci ñëpp ñu nga xam ne nekk ci biir Casamance ci quartier ba nekk ci xolu commune bu Ziguinchor ñi nga xam ne ñoo fa yeewoo tey ji nelawtuñu bay yandoor saa yu asamaan si xiinee ñu jaaxle environnement bi tey ji ku fa dem kenn mënatul nettali nu mel. ay kër yu bëri da ngay dem seen toilette da ngay fekk déchets yi ci kaw ngay dund xet boobu moustique yi di la ci loolu grand santé amu fi. télé bi doo ko mën a seetaan yooyu dañ lay matta dañuy matta sake ba ma sibiru parce que bu ñu amee malade bu garaaw da ngay gis lu bëre nga gis lu bëre kenn du mun a oto du mun a ñëw jël euh, malaat du ma mun a tëdd ci suuf sa tëdd euh, defar oto bi parce que ndox day taa du ma ñeme tëdd il faut finalement ma repousser oto bi mu dem taxaw si yoon goudron yi fële ma liggéey ko. nawet bu nekk dañuy sonn man mii sax dama feebar fan yii laa jógee hôpital léeg-léeg yow taxi bu lay yóbbu. ci hôpital bi sax doo ko mun a ak nawet bi nii feebar yi dañoo bare surtout le paludisme. yoon yi baaxul dara baaxu fi daal sanc boobu moom mën naa ne dara baaxu fi. toilette yi pour nga dem ci toilette yi foog nga teg sa tànk ci ay briques pour nga mën a accéder. danger pour xale yi parce que damay invité xale di di dugg foofu parce que xale bu duggee foofu te a des problèmes dafa ma métti bu baax a baax mais li la woon rek au moins que au moins canalisation dafay dem. ndox mi jaxasoog ñax mi tax rek ba ñi nga xam ne ay teen kenn mënatu ko utiliser rawatina it dembeek dëkk bi am gàllankoor lool ci askan wi lii mooy li ñuy fekk ci biir sànca ba mu doon nag li nga xam ne dina sonal lool xale yu ndaw yi nga xam ne ñoo fay dund ñi rek am risque li nga xam ne moom mooy ay feebar population bi nag ñoom tey ji leen jaaxal mooy tekk tekkaara bu nga xam ne kilifa yi def nañ ko.